أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الكائنات بميلاد سيد الوجود وعلم السهود نبينا محمد الفاتح الحاتم الناصر الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير حامد بن عثمان تاب عليهما الرحمن قد هيجتني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نزم قصيدة وجيزة جامعة ببعض خصاله صلى الله عليه وسلم حبا له وتعظيما لقدره ومستمترا من صحب بركاته لقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين mbokk yi mbokk jullit yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla réew mi di senegaal yàlla na fi yàlla dotti jàmm yàlla na fi yàlla dotti sutura yàlla fi yàlla dotti xéewal jàmm ji fi nekk yàlla na ko yàlla saxal te yokk ko te yàlla musal ñu ci seytaan yi ak njabootam di nuyu bu baax kilifa diine yi ak kilifa aada yi fa tabaarakallaahu dañuy dem ba Tiwaawoon nuyu sëriñ Babacar Sy Mansour alxalifa sunu baay bu baax boobu di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal ay njabootam waaye di ko ñaanal mbooleem njabootu maam Seex Sidil Xaaji Malik radiyallahu taala anhu jóge fa dem ba Louga nuyu sunu wayjur na Bachir Taal mu baax mi fa tabaarakallaahu nga xam ne yitteem lépp mooy ñëpp tegu ci yoon na Bachir bu sañoon ñëpp gëm yàlla te di ko jaamu fa tabaarakallaahu taal ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla bàyyi la fi lool yàlla sàmm la sàmm say njaboot fa tabaarakallaahu di nuyu nag sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Taal yi di ko ziar bu baax mooy sunu sëriñ di sunu xarit di sunu soppe ñu ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yëkkati ko te sàmm ko te aar ko ci daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu dem ba Touba nuyu sëriñ Muntaqa Mbàkke nuyu mboolem njabootu Cheikhul Xadim ñaanal leen jàmm ak sutura xéewal dem ba Kawlax fa tabaarakallah macha allah nuyu mboolem njabootu mam Ablaye ñas mboolem njabootu Baye Niass fa tabaarakallahu waaye jaare fa nuyu sama soppe sama xarit sëriñ Babacar ñas di ko baax fa tabaarakallahu di sama xarit di sama wëllëree nekk nit ku tedd ko tabe macha allah sëriñ Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. noonu laay def nuyu mboolem këru diine yi nga xam ne ñu ngi ci réew mii di Sénégal nga xam ne jàmm ji nekk ci Sénégal. gannaaw yàlla yàlla nga ko jaare ci ñoom kon yàlla nañu leen yàlla fayal te barkeel seeni njaboot ci darajey nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu dellusiwaat ak yéen nag ci seen émission madhu nabi te mooy émission bi nga xam ne dañu fiy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye di fi waxtaane mbir mbindu mag ñi baax ñi waaye di fi waxtaane fa tabaarakallahu jàngale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tay nak ñu tànn goor yalla ci goor yalla yi di cierno hamidou ban bu cierno bashir tal bëgg kolol bashir tal sop ko lol jeex tak ci yamale wu ko lenn nak li firnde moy bo duggé ci kërëm di nga xamné ki dafa bëgg cierno bashir allahu cierno hamidou bok ci goor yalla yi do nit ku bax di borom xam-xam bëgg sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jeex tàkk ci moom mbëggeel googu nag puuse ko di ko puuse ba mu def qasida euh, askanale ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg ci rasulillahi taggin bu yéeme mbokki qasida boobu lañu bëgg a waxtaane ak yéen tey di profité di nuyu doomam ju baax jooju Cerno Cerno euh, Bachir tabaarakallahu di sama xarit nga xam ne Cerno moo ñu boole woon ne jàppante len ndax yena bokk génération waye yaqku ci dara fa tabaarakallaahu Ceerno Bachir maa ngi lay nuy bax dila ziar dila beggé yow tamit dila ñaanal yàlla fa tabarakallah yàlla nga sut way juri ci lépp yàlla am na ko mën na yàlla ko yàlla def Ceerno Hamidou banne alhamdu washukru wal irfaanu wan ni'am lillahi subhanahu subhanahu rabban lahu qidamu Cerno Xamidu nee na alhamdu maa ngi sant yàlla te baatu xamd mooy baat boo xam ne dafa dajale ñeenti cant moo tax mooy cant gi palaafoné te mooy sant gi yàlla sant boppam parce que yàlla bi mu créé asamaan ak suuf dafa wax ne alhamdulillahi fatiri samawati wal ard parce que yàlla moo xam boppam su santul woon boppam kenn du ko mën a sant mu dellu waxaat ni alhamdulillahi rabbil alamin moo tax bu ñu bëggee sant yàlla dafay mel ni dañuy abbu làmminu sunu boroom jaare ci ngir mën koo sant yàlla mu njëkk a sant boppam yàlla sant jaamam boo xam ne def ko teg nattu mu muñ ko mu yonent yàlla ayuba alayhi salaam feebar bu metti la ko yàlla teg mu muñ ko yàlla kontaan ci moom ba ne ko ni'mal abdu innahu awwaab ak sant gi nga xam ne doomu aadama moo ko sant yàlla yàlla defal la xéewal nga sant sa boroom ak sant gi nga xam ne doomu aadama moo koy sant moroomu doomu aadamam ñeenti cant yooyu yépp kenn ko jagoote mooy yàlla cerno ba cerno xaamidu ne alhamdu cant ci jëf wa shukru ak sant ci làmmiñ wal irfaanu ak xam yàlla wa neamu ak xéewal yi lillaahi ñeel yàlla bu la yàlla dimbalee ngay bokk ci ñuy sant santee ko yàlla bu la yàlla dimbalee nga bokk ci ñi ko xam santee ko yàlla bu la yàlla taranga taraanga nga xamne taranga gi mu ngi ko ci yalla sante ko yalla ndax beur nañu yalla defal taranga te del te delo wuñu yalla njukal tax mu ne ñent yoy yeb lillahi aji sax la ñeel yalla Subhanahu tudna sel bur bob nga xamne rabban moy bur bi nga xamne lahul qidamu mo fi jitu yalla fi ñeek ñep jiitu gim fi jiitu moo tax mën a amal li fi am mu ne taqaddasat sell na zaatuhu jëmmam jëmmam yàlla ka zaaka niki noonu asmaahu turam ya asmaahu ya ni jëmm ja sellee moom yàlla noonu la tur ya sellee mu ne lëhu ñeel na borom bi almahaamidu ak cant fi daaray ni ci àdduna ak alaaxira wala izamu ak màgg yàlla daal mooy ki nga xam ne moom lañu ñu war a sant ci àdduna waaye moom la ñu war a sant ci àllaaxira ndax li xew yépp moom lam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu cerno xaamidu bànne wa jalla màgg na wa jalla ëpp na xaaliquna aji bind suñu di yàlla an an yakuuna lahu fii mulkihi ni abadan niddun wala xasimu Cerno Xaamidu bànnee na ëpp na ci yàlla yàlla di am ku muy bokk ak nguuram gi wala ku mu cay xëccoo wala ku mu cay xuloowaale moom rekk wéet ci nguuram gi moom yàlla amul kenn kum ko bokkaaleel qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla bu doon am carte d'identité mooy saar woowule yàlla nee na nee na rasulillahi man yàlla kenn laa man la ñépp dëgg mal man yàlla juruma kenn te kenn juruma te awma àndandoo awma soxla awma nawle kon yàlla daal moo wéet ci jëmmam jëmmam yàlla nguuram gi it moo ko moom moom yàlla moo ci dogal la ko soob moom yàlla summa salaatu ala xayril bariyati man tasharrafat bi hudaahul urbu wal ajamu ginnaaw ba mu sante yàlla ba noppi nag jàngal ñu ne ki ñu war a sant kenn rekk la te mooy yàlla mu gestu nag xool sepp soppeem ba di rasulillahi mu ne summa salaatu topp nag ak julli ala xayril bariyati ci gën ji mbindéef man mooy ki nga xam ne moom rasulullahi tasharrafa teddee na bi hudaahu ci njubam gii mu indi lan moo ci tedde al urbu kuy arab wala ajamu ak kuy ajam xam nga lu dul arab rek ajam la mbindeef yépp ñu ngi teddee ci njub gi nga xam ne moom la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi kooku nag julli ci moom daa ndax yàlla njëkk a julli ci rasulillahi digal malaayika yi ne leen julli leen ci rasulillahi digal mboolem ku gëm yàlla mu julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima cerno xaamidu baan nee fa kaana mawliduhu lil xalqi makrumatan wa faaza min nayliha al akwaanu wal umamu na fa kaana nekk na mawliduhu judduk rasulullahi sallallahu alayhi wa makrumatan di ak tedd nga lil xalq ñeel mbindéef yi judduk rasulullahi tedd nga la ci askan wi yëguloo ne bi mawlidika dunyee zëhët wa tazayyanat wa daanat li arbaabil uqulil amaaniya alaaji Mansour nee na àdduna avant njol màkka juddu daawul puukarewu bi njol màkka juddoo la tàmbalee tiitaru kon juddu ko tedd nga la ci mbindeef yi Cerno Xaamidu Bànne wa faaza min nayliha al akwaanu wal umamu nekkiteef yeeg xeet wi ñoom ñépp ñu ngay texee ci judduk rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax avant jol màkkaay judd àdduna dafa lëndëmoon ci bew lëndëm ci mooy yàlla lëndëm ci lekk riba lëndëm ci tooñ lëndëm ci naan sàngara lëndëm ci def mboolem xeeti ñaaw téef yi bi mu juddoo moo orienté nit ñépp jële leen ci lëndëm indi leen ci leer jële leen ci mbon indi leen ci mbaax ci jële leen ci ndëngte indi leen ci njub jële leen ci man a fen indi leen ci dëggu jële leen ci wor indi leen ci kóolute jële leen ci ñàkk a indi leen ci maandu lépp luy xeetu ñaawteef jol màkk aaye leen ko teg leen ci yoonu baax yoon wu jub te mooy siraatal mustaqim ñu ne Ceerno Xaamidu Baan loolu kañ la am mu ne wa fi chehrina loolu mu nga amee ci sunu weer wa ban weer chihri rabii allazi te mooy rabiul awal mu ne mooy weeruk rabi bi nga xam ne bi nuur bi ca leeram ga in kachafat an dëhrina zulamu in ca la wuññi ca la dégagé ak zulamu lëndëm an dëhrina ci sunu jamono weer woowu di weer rabiul awal nga xam ne mboolem wee temps yi moo ci moo moo ci gën a moo ci gën a kii moo ci gën a baax rabiul awwal mooy jamonoy naataange jamono ji nga xam ne du tàng lool du sedd lool climat bi dafay yem tabaarakallahu te dafay naat bekkoor du am dara du am dëkk bi dafay neex ci jamono jooju la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd loolu rek ab signe la buy wane ne kii dafa ñëw pour naatal àdduna dafa ñëw ngir indi jàmm dafa ñëw ngir indi tabaarakallahu bànneex ne loolu mu nga amee ci weer rabiul awwal ci weer woowu nag ba mu juddoo moom rasulullah ci la dàqoo leer na di ñëw wa kayfa la pourquoi pas wa kafa min fadlihi sharafan doy na rekk ci ngëneelam moom rasulillah tedd nga lay ndeysaan mu ne nag wilaadatul xayri man tammat bihi chiyamu mu ne wilaadatul xayri juddu kii nga xam ne mooy jëmmi yiw moom rasulullahi sallallahu alayhi wa na man meeg nga xam ne tammat mote na bihi ca moom ashiyamu jikko ya jikko yi baax yi ci moom la mattee moom rasulullah bu usti bu istu li utammima makaarima al hmm? mu ne wa kayfa la pourquoi pas wa kafaa doy na min fadlihi ci ngëneelam sharafan tedd nga wilaadatul xayri juddu ki nga xam ne mooy ngën jimbindéef mbindéef doy na ci rabiul awal tedd nga parce que gën ji mbindéef ci weer ci moom la juddoo ci ayam la juddu hmm? ñu ne kuy mu mel ni dañ ko posé question ne kuy gën ji mu ne man mooy ka nga xam ne tam mat matee na asiyamu jikko yu bax yi bi ci mom sallallahu alayhi wa sallam kon nak wa daama chehru rabiin farhatan khutimat bihi an nubuwatu wal ixsaanu wal qiyam mun ne wa daama sax na chehru rabiin weeru rabi bi te mooy rabiul awwal sahna ci mom farhatan farxatan sahna ci mom ca lu ko bégloo ci ayam la njol màkk juddoo weer wu nekk danga romb jàll bi mu yegsee nag ci la rasulullahi judd mooy nag xutimat kasteef na mottaleef na bihi ci njol màkk an nubuwatu nubuwa wal ixsaanu ak njëkk wal qiyam ak valeur wal qiyam ak njub wal qiyam ak valeur nee na ci rasulullahi la yàlla kaste ak yonent yonent mënta ñëwati ci ginnaaw rasulullahi li waral yàlla teel a jël njabootu sayyiduna muhammad yu góor yi misaal la ndax doomu yonent mënta doon lu dul yonent te yonent du doon jigéen góor lay doon te comme ginnaaw njol màkk yonent mënatula am yàlla teel a jël ay doomam yu góor moo tax surafaa yi ñu ngi bàyyeekoo ci doomu jigéen yi te mooy sayyidatuna Fatima mu ñu dénkoon sayyidina aliyun karamallahu wajha borom xaybar sama turandoo waaye wal ixsaanu wal qiyam it bi xutimat parce que nit mënatula def lu rafet ba romb rasulillahi nit mënta am valeur ba ëpp njol màkk nit mënta jub ba gën a jub rasulullah sallallahu alayhi wa kon du ñu mën lu dul roy ko du ñu mën lu dul roy ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax Ceerno Xaamidu ne waqad tamannat suhuurul aami law xusiyat bima xawaahu rabiicun kulluhu nicamu mu ne waqad tammat waqad taman waqad tamannat mébétoon na suhurul aami weeru at yépp ñu ngi doon mébét di sàkku nan ay waay law xusiyat bu ñu làqoon bima xawaahu cala cala cala làq na ko rabiicun weeru rabiicul awal ay waay li mu làq suñ ko làqoon parce que la mu làq kulluhu niamu lépp xéewal la ndax jëmmi yërmande ji la weer rabiul awal séddoo te mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne yàlla ko xool ba yàgg ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama laa yónni yow rasulullahi nga nekk jëmmi yërmande ñeel àdduna bi moo tax daan na toog ba yàgg mu ne ana rahmatul muhdaat man kadu yërmande laa boo xam ne yàlla ma wàcc ci kaw jaami ngir yërëm leen sallallahu alayhi wa moo tax ku ànd ak moom jaar ca yoon wa mu la teg roy ko ci ay doxalinam ak jikkoom ju baax ja foo jaar làq sa ngërmande boroom Cerno Xaamidu ne milaadu xayril wara ruuxan wa afidatan bi yawmihi fafraxu yaa ayyuhan nasamu mu ne milaadu xayril wara juddu kii nga xam ne mooy gën ji mbindéef di rasulillahi ruuxan ci ruux wa af ak ci xol bi yow mi hii ca bisam ba fafraxu bég leen yaa ayyuhan nas mu éeyee nit ñi hmm? milaadu xayrul wara juddu gën ji mbindéef fafraxu bég yaa ayyuhan nasamu ee nit ñi bi yow mihi ca bis ba mu juddoo bëgg leen ruuxan ci ruux wa afidatan ak ci xol seyduna muhammad sallallahu alayhi wa bi mu juddoo màkk dafa leer nañ mu ndax dañoo yokk leeraayu jant bi dañoo yokk leeraayu jant bi jant bi leer ba makka leer naññ ba mboolem ñu dëkk Shaam dañuy gis leer leer gi ne muy jollee adaat li batxain qusuuran li qaycharin hmm? alaaji Maalik waa qaychar ak ñu nekkoon ca batxa ca xuru makka ya ñoom ñépp ñoo jàkkaarlook leer ngay jolli biir màkkatal mukarrama bi njol màkka ju hmm? sallallahu alayhi wa sallam wa qaala almalaa'iku abwaabu samaa futixat kazal jinaanu wa nuuru shamsi fi l alaaji Malik ne yàlla wax na malayka yi ne leen abwaab abwaabu sama fotixat ubbi leen buntu aljanna yi ubbi leen ko ubbi leen ko ubbi leen buntu aljanna yi abwaabu sama fotixat alaaji Malik nee na yàlla wax na malayka yi ne leen abwaabu sama fotixat ubbi leen buntu asamaan yi kazal jinaanu ubbi leen buntu aljanna yi nda xéewal gi tasaaroo wa nuuru shamsi fil azami yokk leen lumière jant bi alaaji malik lu xew mu ne sayiduna muhammad mooy gane àdduna moo tax cerno xaamidu ne bég leen yéen doomu aadama yi bég leen ci bis bi njol màkk juddoo bég leen ci ruux waaye bëgg leen ci xol تمانلي ديجل إن السعادة في إحياء مولده فأحييه بالتقى والذكر تغتنمي تيرنو حامد بانينا إن السعادة ورن ني أكتخدال في إحياء مولده مونغي أميتي دندل جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم alaaji Maalik waxoon na ko ala azimu laylal wilaadati xisbatan màggal leen juddug rasulillah ngir sàkku yiw na Xaamidu Bànne inna saadata fi ixyaai mawlidihi ak texe mënta am lu loolu ci màggal juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa koo xam ne boo ko màggalee euh, wala nga bégal ko yàlla kontaan soo ko toppee yàlla kontaan hmm? kooku lu waay def ci moom yàlla nga koy defal loolu lañu war a xam lu ñu defal sayyiduna Muhammad ci lu baax yàlla lañ koy defal lu ñu ko màggal moom rasulullah yàlla lañ lañ koy defal luñ ko mënti tagg yàlla lañ koy defal parce que yàlla njëkk a màggal rasulullah yàlla njëkk a tagg rasulullah yàlla njëkk a fonk sayyiduna Muhammad moo tax ku ko fonk wala nga di ko tagg wala nga di ko màggal jàppalewoo kenn ku dul sa boroom sallallahu alayhi wa sallam cerno xaamidu ne fa axyihi waay waaye dundalal juddu ko rasulullahi waaye nag bi tuqaa nanga ko dundal ci ragal yàlla wa zikri nanga ko dundal ci zikkar ci zikkar nee na soo ko defee rek tëxtani mi nga màng koom waaye ñi baax ñëpp a bokk ni ñuy waxee alaaji mali nee na ala azimu màggal laylal wilaadati guddik judduk rasulullahi xisbatan ngir sàkku yiw waaye sa maam nag isa lam yakun naxwal xaraami udulu bu fekkente ne nag doo doo jeng jëm ci lu xaraam lu xaraam loolu nag la la Cerno Xaamidu Bandi la dàqal ne la fa ahyihi dundal ko bi tuqaa ci ragal yàlla wa zikri ak zikkar soo ko defee tëxtanimu nga màng koom tiyaaba ji ngay sàkku ci màggal juddu ko rasulullahi soo ko bëggee am la ngay njëkk a jiital mooy ragal yàlla ak tudd yàlla mu ne lillaahi kaay leen yéemu lillaahi kaay leen yéem le ma darru unaasin baaxu ay nit yoo xam ne azzamuuhu màggal nañu judduk rasulullahi ila an irtaqaw ba ñu yéeg lil ulaa jëm kaw wa tartashimu te topp ca it nag albishru mbégte Cerno Xamidu Baan nee na kaay leen yéemu kaay leen yéem li ma ay nit yoo xam ne dañoo màggal rasulullahi ba yëg ci martaba yu kawe ya bañ ca yéegee nag mbégte daat leen topp yéeguloo ne booy màggal rasulullah yaa ciy màggee ñi bëri lool leen réere njool màkk màgg na ba noppi parce que yàllaa ko njëkk a màggal te ku yàlla màggal nga màgg ku xes ba ñay loo ko loolu olof waaye ku yàlla xes màggal kenn mënut laa màggal ba mu rëy ku yàlla xes tagg kenn mënut laa màgg tagg ba mu rëy waaye nag لا laaj مالك وخون رك نروم صنع المصطفى بعدما اتى سناء من الهادي عليه جليل ndax dañuy sàkkooti tagg sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ba nga xamee ne yàllaa ko tagg ba noppi way hisbatan rek ngir sàkku yiw sallallahu alayhi wasallam kon magal rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam jaamu yàlla la ibadallah la jaamu yàlla la bu fekkente ne nag teg nga ko ci sharia ak sunna bëri na ñuy màggal sayduna muhammad pare jële ca bàkkaar loolu nag ab jullit war na koo moytu ku am xel war na koo moytu di sàkku yiw ba am ci bàkkaar loolu boroom xel du ko def kon bu fekkee dangay màggal sayduna muhammad te bëgg màggal gi ngay màggal rasulullahi nga séddu ci ba am ca lu doy faaw nga jëfandikoo lii ñu la wax te mooy fa ahyihi bi tuqa wa zikri soo ko defee rek tëxtanim waaw màggal leen ko waaye nag isa lam yakun naxwa alxaraami udulu gis nga wax yi ni ñuy duggante macha allah waaw ki ñu màggal kan la mu ne fa huwa saxiyu allazi nawaaluhu ragadun وهو النبي الذي أحواله كرم من فهو ممجل مكة سوكو خمول من لا السخي الذي موي أجي تابي جنغ خمنه nawaaluhu ay mayam rëxadun aji naat la dafa nëtëx dafa bari wa huwa nabiyu allazi axwaaluhu karam waaye mooy yenent yi bi nga xam ne ay mbiram yëpp tedd nga la sayyidina muhammad dafa tabe motax kuku ko bëgg da nga wara tabe njol makka bu la maye doto ñaani parce que dalay may lu doy tak dangem yegg na ci bu maye fatte nako rasulillah du la may mukk ba pare da la xoolee bëtti maa defal nangam mune wa qawluhu waxam layyinun lu nooy la moom sayyiduna muhammad wa fi'luhu jëfam xasanu lu rafet la man iqtada bihima ñaar yi nag ku ci roy la sakka yastaqimu amul benn sikki sàkk na di nga jub njol màkk su daan wax wax ja day nooy su jëfee jëf ja rafet waaye di gëdde di jàndiwaate di yuuxuwaate kooku du sayyiduna muhammad ku koy roy it doo ko def soo jëfee ñu ne accam kooku du rasulullahi te ku koy roy doo ko def sallallahu alayhi wa sallam mooy nag ñaar yooyu ñaaram yooyu daal ku ko ci roy ala kulli xaal di nga jub te mbokki jub la ñu ñaan saa booy julli gannaaw ba nga leqaamee kàbbaar da nga jàng faatiha dem nga ba yàgg nga ne ihdina siraat al mustaqim ay yàlla yalla nga ñu orienté yalla nga ñu jubal tek ñu ci yoon wa nga xamne ne yoon wu bax wa waaw yoon wo nga xamne ya nga dekké diko ñaan pour bëgg yalla defal lako bo reya sayyidina muhammad muhammad Sallallahu wasallam ci ñaar yi fa tabarakallahu di nga am lil wa nahjuhu sunnatun muhtadin faman ramal al ula huda yasaa wa yactasibu ndeysaan dina wa nahjuhu yoonam ba moom sayyiduna muhammad nee na sunnatun mooy sunna lil muhtadiina ñeel way gindi ja fa man raama ku sàkku na nag al ulaa kaw yasaa dafay dox wa yactasimu mu farlu bil huda ànd njub wa yas yasaa wa yactasimu bil huda faaw mu dox farlu ci njub képp koo xam ne yaa ngi sakku ak kawe bëgg bokk ci ñi nga xam ne dañoo gindiku faw nga jàpp ci sunna yi rasuulillaahi jàpp ci yoonam dox dox bu dëgër te farlu ca dox ba waye gënaaw ba ngay dox na nga dox ànd ak jub soko defé li ngay sàkku ding ko am sallallahu alayhi wa sallam huwa al aminu allazi adda al amanata fi ltabliigi an rabbihi waljamcu multaimu ndeysaan huwa al aminu mooy amin mi nga xam ne addaa moo joxe al amaanata kóolute fi tabliig an rabbihi ci jotal ci lépp loo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci yàlla jëm ci moom joxe na ak kóolute gu mat sëkk ci digganteem ak boroomam balam ko sant def na ko te mooy jot li na woote ba wa multaimu muy mbëkkanteeg aljamu mbooloo ya mbooloom yéeféer yi nga xam ne ñoo lànk may dugg ci lislaam mu mbëkkanteeg ñoom ba ñu dugg ci lislaam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa wa ma ala rasulu illa al ab ndaw dara waru ko lu dul jot li ab yónnent moom nag li ko yàlla yónni gëm na ko wóolu na ko motale na ko ci anam bi nga xam ne noonu la ko yàlla bëgge sallallahu alayhi wa kon ñu ñoo ci des ñu ñoo ci des te moo ñuy jëfee li nga xam ne moom la indi moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne Cerno Xaamidu Ban ne kaanat amaanatuhu ramzan li ismatihi wa kaana fi amrihi bi sidq yattasimu kanat amaanatuhu ramzan li ismatihi maanaam ak kóolutee moom rasulillahi exemple la ci ak kaaraangeem ci ak ñoŋam ndax avant muy diglee ak wóor avant yalla diko ko sant na da nga war ne ku wor boobu fekkon na mom mu don ku wor ci jamono ndawam ba waa makkatal mukarrama yéeféer ya ci sen bop ñoko tuddé muhammadul amin ta moy sayyiduna muhammad mu wor mi kon moom déjà ak kóolute incarné na ko ci jamono ndawam ta bobu mission bi ñëwagul te bi mission bi da confirmer lolu daf ko saxal waaye nag wa kaana fi amrihi bi siddiqi yattasimu wa kaana nekk na fi amrihi ci mboolem mbiram ci mboolem digleem mu daan melawoo bi siddiqi ci dëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa lu mu daan digle rekk moo ci jiitu dëggu ca loola ba pare loolu doon dëgg goo xam ne du tox ba ilaa yawmi diin sallallahu alayhi wa moo tax xam ko farata xam ko faratala la moom sayyiduna Muhammad ndax boo ko xamee rek jariñu waaye bëri na ku naan dama koo sopp te réere ko lool bërina na bëri na ku naan dama koo sopp te xamul dayoom njol mag bu ñu xamoon dëgg dëgg dëgg dayoom kon fa tabaarakallaahu àdduna bi yépp ay naat taaha bi zikrika gannatil akwaanu wa bi nuuri hadiyika saadatil azmaanu sëriñ Maodo si dabbaax nee na taaha yow rasulullah bi zikrika gannatil akwaanu tudd gin lay tudd univers bi ci la naatee waaye nag wa bi nuuri hadiyika saadatil azmaanu sa leeru gindi sa leer gi nga indi muy gindi nit ñi mais jamono ci la sange kon fa tabarakallahu bu ñu ko xamee te roy ko ci li mu indi jëfee ko ni mu ko santaane jamono dafay neex bekkoor di du am gis nga tooñ gu metti gi bew gu metti gi mooy yàlla gu metti gi njubadi gu metti gi ñàkk a maandu gi fi nekk ci réew mi lépp li ko sabab mooy ñàkk a roy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikkoom ay doxalinam ay jëfam jëfandikoo li mu indi te mooy alxuraan ak sunna neewoon na maa ngi dem maa ngi leen di bàyyeek ñaar su ngeen ci jàppee du ngeen sànko mukk te mooy téere yàlla bii di alxuraan ak sama sunna bii su ngeen ci jàppee du ngeen sànko mukk bañ ko fi bàyyee nag lépp lu ñu dal ca lañu ñu dalee sallallahu alayhi wa kon jàmmi àddina mooy jëfandikoo li njol màkk jàngale jàmmi àllaaxira mooy jëfandikoo li sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale mbokk yi mbokk jullit yi nañu gëstuwaat sang bi nañu gëstuwaat sayyiduna muhammad nañu nammaat suñu cofeel ci rasulillahi ndax mooy tax ñu jariñukat mooy tax ñu jariñu de kon yàlla nañu yàlla def ay dëgg-dëggi soppeem moom sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم شرن حامد والحق يشهده العدو في قوله قبل الصديق ومن بالحق يعتصم نينجول مكة اك دغوم نينا اب موكو نجيك خامك سوبيم xam nga nit dina deggu bu fekkente ne daa ràcc jëmale ci ay soppeem dina ñàkk deggu bu fekke daa ràcc jëmale ci ay noonam waaye njol màkk daa deggu ba noonami sax xam na ne kii ku deggu la daa maandu ba noonami sax xam na ni kii ku maandu la daa jub ba noonami sax xam na ni kii ku jub la bëri yërmande nekk ku wóor loolu lépp ñu xam ko ci moom waaye nag ku yàlla nam nga jub koo koy jub moo tax ñu dañuy waare rek waaye ndeysaan kay jub yàllaa koy jubal ndax nag yàlla moo ne woon sayyiduna Muhammad ya waareel rek kuy jub maa koy jubal waaye nag wa bil xaq yaatasim njol màkk daawul jàpp lu dul ci dëgg ewaay bokki fi jamono toll nañu japp ci deug te deug gis nga diine ji liko yak moy parparlo jamono ji liko yak moy parparlo da ngay andak sa waay du nek ci deug nga diko faral ngir moy sama waay da ngay gis deug deug ci sa tank ngir na sama waay ab julit du def nonu yonte yalla muhammad dafa wax ne dimbalil sa mbokk su toñi ak buñu ko ñu ne ko yaa rasulallah buñ ko tooñee day xam na naka lañ koy dimbalee waaye su tooñee nag mu ne su tooñee ni ngeen koy dimbalee mooy ngeen wax ko dëgg ne ko yaa tooñ nekkuloo ci dëgg waaye sa mbokkum jullit tooñ nga ne ko yaa nekk ci dëgg ngir lan maag moom a far ngir lan lu mu lay jox ngir lan lu mu lay compal ngir lan ngir lan jëru ko ab jullit dafay dëggu ci biir dëggu ci biti ki ngay àndal na nga ànd ak moom ci dëgg ndax ànd bu dëgg moo yàgg waaye ànd boo xam ne ànd jaayante la mënta dem te mbokki war a ñoo bàyyi xel yàlla bu baax ndax lu fi waay wax lu fi waay jëf lu fi waay tëral lu fi waay atte lu fi waay mën a def ci àdduna bii billaahi bu yowmal xiyaamee dañ ko defaat ci kanamu borom bi te boobaa ñoo xam ne lépp dëgg la kon rikkuwaay bu la àdduna jaral nga jaay sa àllaaxira bànneexu àdduna ba mu tax nga jaay sa aljanna dañu ragal yàlla tax xam ne li yàlla bind ci bépp jëmm ne dinga ko am balaa ngay faatu boo ko rafetalee ak boo ko ñaawalee ñoo bokk yem ala kulli xaal lu dina ñëw kon gëmal yàlla te wóolu yàlla te jub luy sa wërsëg daa ci jot waaye bo jappé né tëg wala wor wala jaay sa mbokum julit wala en euh, di wér ay nit wala sax information di yobbu bo yakaré loolu lay may alalu aduna ba tax nga nuur ca loola yaa ngi nax sa bopp iyaaka tadbiran fa huwa nafi' ala jimal nee bay pexé bari amul wa sallim ila allah al tatub mbiri ko ci yalla nañu jub rek te ragal yàlla te rafetal utin bi ala kulli xaal nit ku nekk li yàlla dogal ci yow daako jot kon lu jar ñaawal gi wallahi dara jaru ko mu ne am daaxuhu fi kitaabillahi waaridatun nicma almadixu wa nicma almaadixu alxakamu mu ne am daaxuhu ay taggam moom rasulullahi fii kitaabillahi ci téere yàlla bii waaridatun aju rot la cerno xaamidu nee na niama baax na ba jéggi dayooy baax almadixu ku ñu tagg ki di rasulillahi wa niama baax na lool it almadixu aji tagg ji di yàlla alxakamu kat aji xerañ ci tagg yàlla xool njool màkk ba yàgg mu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg yaa baax jikko yow rasulillah yaa tedd jikko fa qaala wax na xaaliqu naa aji bind suñu wa innahu la ala aaya bi lay junju kama ata comme na mu dikkee biha fi ayatil qalami boo demee ci nun wal qalami wa ma yasturuun yàlla nga cay wax ci benn aaya naan wa innaka la ala xuluqin azim aaya boobu la Cerno Xaamidu Bandi di junju ci téere ci téere bi ci woy bi kon yàlla mu njëkk a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku koy taggati rek yàlla ngay jàppale yàlla tagg na ko ci alxuraan julli na ci moom màggal na ko joxe ndigal ne topp leen ko dem na sax ba ne bu ngeen su ñu ko toppul toppul toppoo leen ma kon nag fa tabaarakallaahu xam naa ko la ñuy teg sunu baaraam euh, tabaarakallaahu du wax ne rek mboole mag ñi baax ñu ngi tagg sayduna muhammad rasulullahi képp ku koy xarab kàccoor nga képp ku koy ŋàññi kàccoor nga waaye ku baax te am cër ci yàlla mëno def luddul tag tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko mané kon yàlla ñu yàlla boole ci soppé sayyiduna muhammad yàlla ñu yàlla boole ci ñi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg ko moy taxé aduna ak alaxira mbokk seen émission madhu nabé ngok ñu leen dox dig daje ci yeneen émission wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh